màggal ba tey ñi nga xam ne dañuy jóge seeni kër di dem Touba ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy fekk biir tuuba ku ci nekk nan nga war a comporté woo ba keroog ngay delluwaat fa nga jóge wu yow mi nga xam ne yaa ngi dem di màggali màggalu sëriñ Touba ak yow mi nga xam ne yaa ngi nekk ci dëkkub sëriñ tuuba di xaar ay gan ngir ñu ñëw di dal ci yow di la màggalal ñi ngi lay ñaan nga diglu lii bu baax te diglu dénk bi bu baax a baax dana la doon lu lay jariñ te ñi ngi lay ñaan nga partagé ko yaatal ko bu baax a baax yow mi nga xam ne dangay jóge sa kër di dem di dëkkub sëriñ Touba bi mbaa xam nga ne sëriñ Touba ak sant yàlla la wax ñu def ko fa sëriñ Fallou Mbacke feddali ko ne nañ koy defe ci biir Touba ba tax na fépp fu ab murit di nekk di fa jóge di dem ba ci ñu dul ay muurit ku ci nekk maa ngi fay dem ndax sant yàlla doonul loo xamante ne bàyyi na kenn benn yoon kon nag sooy dem war ngaa am melokaan yooyu melokaanoo te sant yàlla gi la ca jiitu mooy jàng alquranul karim salaatu ala nabi jàng xasida ak bernde te sant yàlla waaye dem Touba jóge fii dem ba Touba dara yóbbuwu la fa lu dul dem fa di daje ak a xawaare di def sa yu bon ak a dajeek ay jigéen wala yu mel noonu tax la faa dem wala nga dem fa di def loo xamante ne nakka su dul noonu la méngoo wut ak bëgg-bëgg Serigne Touba méngoo wut ak dëkk ba kon loolu na doon loo xam ne dañ koy bàyyi xel bu baax a baax lépp luy xeetu lu bon war nga ko wattandiku muy lu jëm ci xeetu tux yi ak xeetu naan goo xamante ne dañ koy tere ak col gi nga xam ne da koy sol war nga ko bàyyi xel bu baax rawatina ci sunu mbokki jigéen ñi yóbbu yére yoo xamante ne dañ koy xar fu nekk wala màgg jub si ba tax ngay xeesal di meesu di ko nëbbu di teg gerefaas lépp nga dugg ci ngir di ko def ne damay màggali bisub Serigne Touba Serigne Touba day wóotewut loolu te bëggut loolu benn yoon ndaxte day loolu lu yàlla xaraamal la te Serigne Touba lépp lu yàlla wax rek moom la wax lépp loo xamante ne yàlla sunu borom bii day tere na ko rek Serigne Touba tere na ko kon nag bu fekkente ne moom nga yaakaar war ngaa rus walla nga am looy jomb wala nga am looy daw waaye dem ba Touba sant yàlla yóbbu la fa yow ba nga demee Touba benn ak liif sax waxoo ko fa salaatu xala nabi defoo ko fa xasiday Sëñ Bàmba jàngoo ko waxuma laa naan da nga koy diglu la fa doon def mooy soloo ko simmiku ak nekk ci naka su dul noonu loolu day war naa doon gàtt ci yow te war nga rus di ko def wala ngay dem Tuubaa dara yóbbuwu la fa lu dul di jël alali jàmbur ay xoolal sa borom xoolal Sëriñ Tuubaa ak li nga xam ne moom la dajoon ci tukkeem bi ngir ñun rekk ñu am jàmm mu woote bisub sant yàlla defoo fa dara lu dul dem fa di jël alali jàmbur ak di lor ay doomu aadama ñi nga xamante ne it dañ leen di fekk ji ca dëkk ba nga xam ne ñoom la ñuy fekki ci Tuubaa ñoom it ku ci nekk war ngaa am noo melokaanu melokaan yi ma wax yépp ci ñi dëkk Tuubaa ñoo ko war a jiite waruñ laa fekk li ñuy tere ci biir dëkk bi nga xam ne sëñ bi tere na ko waxuma la sëriñ bi waaye yàlla moo ko jëkk a tere araamal ko ñu koy fekk nga koy jiite ndax bëri na ñuy nekk ci biir dëkk bi kat bëri na yu ñuy tere ñoom ñoo koy jiite nañu wattandiku loolu ngay mees wala ngay xeesal wala ngay teg ay gerefaas wala xeet yu demee noonu yépp wala ngay sol yére yu dang wala yu xat wala yoo xamante ne yére yu xar la nga xam ne lépp loo xamante ne góor mën na koo gis rek di ci yéege boppam war nga di ko wattandiku bu baax a baax ndax bari na ñoo xamante ne ba ñuy jógee fa ñu nekk am na ci ñoo xam ne ba nuy ñëw dañuy jàpp ne tuubaa moom ku fi ñëw rek sellal ak lu baax ba tax na lu baax ak yére yu normal la ñuy sol waaye buñ ñëwee ba gis ñi fi nekk am na ci ñoo xamante ne buñ leen gisee rek dañuy daal di xeeb leen bu baax ndax dañuy daal di jàpp ne lañ foogoon ne moo fi nekk ak biñ ñëwee liñ fi fekk wuute na kon war ngaa bañ a rusloo waa dëkk bi ak di leen teg gàcce goo xam ne fu ñu dem dañ leen ni nettali naan tuubaakat la ma fa foogoon ak la fa nekk dara bokku ci rawatina ci biir kër kilifa yeeg ñépp nga xamante ne dañ leen a war a roy kon lii ñuy wax daanaka ci ñi nga xam ne ñi ngi dëkk ak ñoom ci leen koy jiital lépp lu baax day ci yéen lan ko war a roye ba noppi lépp luy ab safaan yéen a ko war a daw ba noppi ña fay ñëw daal di koy mën a daw waaye suñu fekkee ñi nga xamante ne danoo bokk fu baax ñu ñëw fekk leen ñu mel wenn melokaan wi yéenay may ñeneen ñi fit kon nag loolu nan ko bàyyi xel bu baax a baax kon ñu dëkk Touba nan bàyyi xel loolu bu baax yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen di demit ku ci dem na nga fexe jàng alquran jàng xasida wala su fekkee jigéen yooyu yëpp mënoo ko nga nekk waañ wax di liggéey di bernde waaye soloog simmiku sol loo xamante ne sëñ da koy sëñ bi da koy tere dem di taxawaalu ji wala nekk fa di teg ay pirig di fotowu lu ne nga dugg fa ak di dajeek ay góor di def yaa yaama neex ku ci nekk war na koo rus ci yéen te daw ko wala nga dal ci kër dem texet kenn xamul sa comportement noo mel rawatinaak nga nekk fa ba màggal gi jeex nga ñibbi ak ni nga xam ne noonu la waa dëkk bi di ne ci màggal gi ak li ñuy daj ci gan ñi ngay wëlbatiku di leen laaj paas xeeti coono yooyu yëpp képp koo xam ne yaa ngi dem war nga koo wattandiku ndax waa tuubaa dañoo dëkk tuubaa rek waaye képp kum ci mën a doon war nga fexe loo yóbbu ba ku ci nekk daal di bég ndax danga jóge feneen ñëw rekk waaye li war waa Touba ci wàllu bernde ci wàllu lekk wàllu naan ak wàllu jàng ak lu mu war a doon rek daanaka war na la kon nag yii ma wax nan ko bàyyi xel bu baax a baax te def ko muy sunu yóbbalu màggal ndax sëriñ tuubaakat li mu daj ba woote ak cantu yàlla booy dem di cant ji yàlla war ngaa mel weneen melokaan bañ rusloo